suñu borom ci kennam gi ci wéetam gi ak sax nee na boo a ko amee ci awal am ko ci aaxir am ko ci zaahir ak baatin am nga yàlla matal nga ko dañoo ñëw ci kan mooy yàlla ak nekkinu suñu boroom ci kennam gi ci wéetam gi ak sax nañ ko na na mu sàkkee leer ga ak na mu ñëwee ba ci mam aadama waaye asamaan ak suuf Mm-hmm. Cheikh As jant beeg weer bi. Cheikh As géej géej jéeri gi. ndeysaan Cheikh As suuf ak géej gi liy dund ci kaw suuf liy dund ci kaw géej ak naka la nit ki di ñoddee ñaan ba ñaan gi nangu ak naka lañ koy ñaanalee ba mu nangu. Cheikh As coow daf caa am. ndeysaan ma bëgg nag nga indil ma ci leeral ci géej gi suuf si asamaan si jaww bi ngelaw li ak weer wi. Cheikh As loo may tënkal loolu rek ci benn waxtaanu cinq minutes wala 2 minutes 3 minutes ñu daal di jàll ci waxtaan wu di waxtaan wu wees bi. yàlla lu tax mu doon ëwal. waaw. noonu la doonee aaxir. waaw. ngay daw ci aaxir moo mujj ngay wër mu ne la man maay zaahir. waaw waaw nan la mën a nekkee zaahir feeñ na ni anamu mu nëbbaat la ne la maay baatin. <laughs> Eh. <laughs> ëwal la jiitu na. Eh. mujj na. Eh. feeñ na nëbbu na. léegi nag yow ngay wër mu ne la hé mu naa mu ne la maa la gën a bugg jege sa buumu xol bii noonu la defee sàkkee asamaan si sàkk suuf si te boo xoolee asamaan si jaww ji dafa am ay couches yoo xam ne dañoo am njëriñ ci kaw jaww ji couches yi dafa am ay atmosphère yoo xam ne ñoo ñoo ëmb couches yi couche bi ne atmosphère tey benn benn couche bu ne mu ngi égal at couche d'ozone benn atmosphère waaw couche d'ozone yi mooy protéger monde bi gis nga Lamine monde bi waaw

jox doomu aadama yi nga xam ne terre bi premier souffle si ak premier asamaan si. jox ko forêt yi jox ko géej gi jox ko fleur yi jox ko ressources jox ko mi. jox ko hmm. température bi fois inspiration à expiration moo waral bu ne montagne équilibre équilibre dootul amati. waaw maanaam doomu aadama yi ñi ne ci si secteur yi dañ koy yëg bu ko fee day am ay typhon yoo xam ne ñooy nekk ay manam ay ano ano norme ci yépp loo xam ne luy daw la ci Amazonie yi boo ko disparition day am ci ndox yi nga gis géej gi di laalante soleil bi day recevé wu ci géej gi buy recevé ci géej nga gis ni muy recevé woo waaw day am encore ay ay ay ay ay terre yoo xam ne ci biir continent yi hmm. ñoom toujours dañuy yëg maanaam recevement boobu noonu